بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مغالق النيران لمودي خمبي سواريا نعم خمبي تج سوارا ومفاتيح الجنان أك caabi ajana ya daa tudde téere bi ay xomb yu tëj sawara ak ay caabi yu tijji ajana alhamdu xeeti cant yépp lil ilaahi ñal na buur ba rabbil alamina kay borom bi ndeef ya tumma salaatu topp dolli teral wasalaamu ak dolli wóolu kulla xiinin ci bépp waxtu xalal lësi yàlla na nekk ci ka nga xam ne xatama mottali na kulla nabi ina mboolem ñañu solo wa amate mu jiite kulla mursalin képp ku ñu yónni binti ñaami mu bàyyi ko ci borom xéewal ya sayidina te mooy sunu sang muhammadin muhammad wal ali ak ñoñña wa sahbi ak ay sahabaam ibadi dil jalali ñadi jaami borom màgg ga dafa tàmbalee ci sant yàlla bi nga xam ne moom rek mooy buur ñaan yàlla dolli teraanga ak jàmm faw faw ki nga xam ne moo mot li mboolem yi yàlla wax yu moo mot li mboolem yonante yi te it mooy ilimaani mboolem ko yàlla dolli teraanga ak jàmm ak mbokkam yi ko gëmoon ak saxaabaam yi nga xam ne dañoo nekkoon dëgg dëggi jaami yàlla haza jàppal lii wa innama naka la nga xam ne xaleehi nekkoon na ca al muqtafa kañu xeñtu ixtafa nëbbu na xàllan naas ci nit ñi li katratil jaxli ngir barik réer ga wa tabiat haa te topp ko siiratu saxaabati doxalinu saxaaba ya dawil huda ñedi waro mu njub wan nuuri ak leer bi ijaabati ànd ak wuyug yàlla wala nangu luk yàlla tuma topp topp leen ñoom ñaar xudda siyooxi njubug sëriñ sa dawit tuqaa ñetti waroom ragal yàlla wala wal xilmi ak xam-xam war rusuuxi aku sax ci xam-xam mu ne nag gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi kat li mu leen njëkk xamal mooy xam fooy aw léegi jafe na ndax nee na li yonent bi nekkoon dëgg-dëgg daanaka xamatuñ ko rek ndax réer gu metti fa saxaaba yi jaaroon moom it noonu daanaka xamatuñ ko ndax rek réer gu metti sëñ su baax sa nga xam ne ñoo doon saxaaba yi itam fañ awoon moom it noonu daanaka xamatuñ ko rek ndax rek réer gu ëpp dafa ne salla boobu nag dañ ko daan teg ci ba weesoo wayu haza wa innama alayhi xam ne almuqtafa jee mu tudd moom la julli ci moom ne salla yàlla na dolli tedd nga xale yi ci moom man yàlla mi nga xam ne jalaahu feeñal na ko muntaqan mbir mu mi ku ñu tànn xudwata man tey royteefu képp koo xam ne lam yëkku nekkut min ahli shaqa di bokk ci ñooñ texee di koy wow kon daal dellu ci yonent bi di julli ci moom ñaan yàlla dolli ko teraanga ak jàmm moom yàlla mi ko feeñal muy fu képp ku nar a texe man talaba ku sàkku alwusoola àgg lil jalil jëm ci aji màgg ja fal ya'tasim na jàppandu bi sunnati rasuli ci sunna yonante bi an yu laasima ci mu taqoo mutiyan aji topp laa yamilu kog du jeng ani sabili walis yoon wa fii zahirin ci lu feeñ wa batinin ak ci lu nëbbu yaquudu nga xam dana ko womat bil ilmi ci xam-xam wa bil xibaadati ak ci jaamu yàlla kama yurabbihi niki mu koy tërbiyaa bi tarkil aadati ci bàyyi aada nee ku bëgg a ci yàlla kat da ngay fexe ba jàppandu ci sunna sunna si yonante bi ci ngay jàpp wér a wér la ci gën a gaaw nag mooy boo gisee sëriñ boo xam ne xañtu na yoonu yàlla ba am cëb cër ba kumpaam dañ nga far ànd moom mu teete la ca ko defee moom fekk na aw na ci yoonu boo xam pakk yi lan la fakk rek mu xamal la ko toppaleel la ko ba du la fakkatal xam ne kon dalay womat ci xam-xam ak jaamu yàlla di la yar ci bàyyi aada bàyyi aada mooy na nga miine woon jaxasoo nam la neexe waxe nam la neexe di lekk nam la neexe di nelaw nam la neexe yooyu yëpp dalay yar ci nga bàyyi xeet yooyu yëpp nga xam ne leen lu nekk léegi da nga faj rek lor waaye sab jaxasoo day néew lool rawante na bépp jaxasoo bu amul njariñ bala ngaa lekk da ngay xiif bu wër bala ngaa naan da ngay mar bu wër bala ngaa nelaw day fekk nga aajowoo ko wér wér nga xam ne leen lu nekk daal moom danga nga cay rek lor waaye doo ci topp mukk aada rek ne nii la ko nit ñi aada woo defee mel noonu moo la yar ci lu demee noonu fekk lu mën képp koo xam ne iyantasala beru na qabla wusoolihi ci njëkk àggam ga walam yu rabbihi te yaru ko mu rabbin sëriñ bi aji tarbiya xadd kamula ba mat na fa innahu naka moom yaxoodu dana xuus fii baxari rada ci géeju alkande wala ye jiw te du dikk minhu ci moom shay'un dara abadan mukk nee na teel a beru moom ëpp naa def bala ngaa beru aw sa yoonu bopp kay da ànd ak ku teete ba nga xam yoon wi bu ko defee nag nga door a beru waaye boo teelee beru rek daal di bëgg a sóobu yàlla soo tuut da ngay alku rek te doo ko yëg te doo jariñu boole ci li annahu ngir naka moom yàqoo duhoo dana ko womat ak seytaanu seytaane wan nafsu ak bakkan wal hawa ak bànneex kama abaanoo naka ñu ko birale ndax nee képp ku teel a rek boo tuut seytaan yi moo koy daal di féetewoo ak bakkanam ak bànneexam di ko wommat di ko jëme rek ca safaan ba bu ko defee mu loru rek te du jariñoo bu àndeek nag ku àgg te mën a àggale nag waaw kay loolu rek moo koy dimbale wal yàlla mën na xam kullu zakiyin jëpp aji ñaw wa balidin ak jëpp aji gàtt xel ni ànd na lësi naka ka nga xam ne yu xaalifu dana jiyoonteeg alxaq dëgg paridun ku ñu dàq lay doon te wal xaqu dëgg it batul xabdi mooy jëkkik jaam ba bi tawxiidi ci xam-xamu tawxiid wal fiq si ak fiq xan tasawufin walis tasawuf mu jiidin ku di aji rafetal muntahijan mbir mu ngi aju soobu madhaba ahli sunnati yoonu ñooñ sunna maxal jamaati ànd ak mbooloo watil ka te loolee aljunnatu mooy pakk ba nee na ne ñëpp maase ci xam ne ku awul ci yoon doo dem te yoon yu mooy da ngay njëkkee xam-xamu tawxiid ba am ci yóbbal teg ci fiq ba am ci yóbbal teg ca tasawuf ba am ci yóbbal nee nga boole ca taxaw teem nag foo mën di toll sa pas-pas ak sa xam-xam ak sa jëf yépp yépp dëppoonteeg sunna tegu ci kaw sunna ndax topp sunna ëmb na yépp yiw ci la ñuy ame wépp yiw waaye topp bi daanag ci la aw ay di dale képp ku ay dal fexe ba amum yóbbal nag ci tawxiid ak fiq ak tasawuf nag am nga yóbbal dem rek a des léegi nag boo gisee sëriñ matub sëriñ nag nga dem ànd ak moom nag mu lay teete ci yoonu yàlla fasaari xoon na ngeen gaawantu lil xil mi jëm ci xam-xam ajjuma xëy na mbir mu mi seen xaasit yi na mbir mu ngeen di way jublu li wacc yi dil jalaali jëm mi borom màgg ga xam la tasaddura ci njëkk jiitu wal infiraadi ak wéetoo bi nafsi ci bakkan ba wal at baax yi ak way topp muy ay dongo fii tamaadin ci ak sax nee ne bala ngeen doon kilifa di jiitu mbaa ngeen di beroog seen bopp na fekk ngeen xam bu wér wér ndax boo gaawee beru te xamoo rek ay am bala ngaa jiite kenn mbaa bala ngaa beru aw sa yoonu bopp na nga gaaw fexe ba xam-xam gu sel moo tax mu ne na ngeen gaawantu yéen ñëpp fexe xam xam gu am njariñ te yàlla rek tax doora beru door a jiitu kenn di topp ci yéen id ngir zulumaatu biddaxati tiqaadin lëndëmi biddaayi pas-pas takku fu danañu fekk anwaar ak tibaaxil haadi leeri topp sunus aji jubal ja ndax nee biddaa daa lëndëm këriis su fekkee ni jàngoo ba xam lu yoonu sunna ba nga mën koo topp li ci ëpp faaw nga topp ci bidaa te bidaa moom daa bari ay lëndëm yoo xam ne mooy dox sa digganteeg leeri sunna kon man naxaakumoo ku leen tere xanit taalum walis xamlu fa nax yoxoo tereem nga yan tam yi dana askanu ila dalaali jëm ci ak réer id ngir képp koo xam ne manaxa tere na mina taalum yi ci xamlu fii da zamaan jëli jamono fa indaxoo naka moom daxaa woote na li bidaatin jëm ci bidaa chanihatin bi aji ñaaw idi ngir alxamalu jëf in lam yakun dem nekkut bineel mi di ànd aku xam shaabahoo dal koy rax rax ko mooy jaxasoog moom xalalun ak yàqu ñu ku leen di aaye jàng ba xam yoonu yàlla ba mën caa aw xam leen ni kookee mi ngi leen di woo jëmee ci réer ndax nee na jamono jii ni nga xam ni moom la réer gi maasee xam daanaka kenn ni ko tàmbale woon téere bi kenn xamatut la yonent bi nekkan mbaa la saxaaba yi nekkan mbaa la gaa yu baax yi nekkan ku leen ci aaye jàng ba xam yoon wa ñu baax ñoo awoon daal na ngeen xam ne mi ngi leen di jëme ci réer mu ngi leen di woo jëme ci bidaa ndax nee jëf moom faaw xam da koy jiitu rek waaye bu fekkee ne xamoo li ngay def li ci ëpp la ngay yàq mooy ëpp la ngay defar faaw rek na xam gu wër jiitu jëf door caa topp ba tax na kon buñ ne sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen lañ ci jublu rek mooy lépp loo toll rek ci sa mbirum diine ak sa mbirum àdduna rek nga xam ko bala nga caa dugg loolu moom farata la ci kenn ku ne fal xilmu xam-xam wal xamalu ak jëfe xam-xam ba jawharaani yaari wurus lañ ba yaari cosaan lañ yajlubaani yooyu danañu ñoddee li xayra it daare ni jëm ci yaari yiwi yaari kër yi nee yaar yi ci lañuy ñuy amee lépp lu baax ci àdduna ak alaxira mooy xam gu am njariñ ak jëf ji yiw xam lu baax te di ko def ngir yàlla ak xam safaan ba di ko moytu ngir yàlla yaar yi ci lañuy ame yépp yiw àdduna ak alaxira dara mën koo génn wa ashraful aslay ni gën jaa tedd yaari cosaan ya xilmun moo di ab xam-xam kuddima bopp jiitaleef na ko kama kama ataa naka dikkee bi ci loolu xadisun ab hadis xadd sama bopp yëkkati ko na daa tagg yaar yëpp muy xam ak jëfe mu ne nag xam moo gën a tedd jëf ndax daa mel ni xam-xam mooy fondement bi xam ne bu fondement amut tabax du am waaye itam nag boo yemee ci fondement kese te doxoo teg ci it kat doo am néeg boo dugg waaye teewoon na nag am xam-xam moom bu amut jëf du mën a am kon xam-xam moo gën a tedd jëf te mooy cosaanam iddi ngir kullu xaamilin jëpp aji jëf bilaa xilmin ci lu ab xam-xam yulaa bu def na ko gis fa saa yuhoo jëfam ja mis lu xabaayin képp ab pënd la nutira bopp wisaareef na ko li tax mu ne xam-xam moo gën a tedd jëf mooy kenn mënut jëf te amoo xam googule bu xam-xam laluwul rek jëf du ca mën a tegu ku amul xam googu dina mën a jëf loolu moo tax na kon xam-xam moo gën a tedd jëf waaye it wa man xawaa ku làq xel man xam-xam walay sa yaamalu te du jëfe bi ci moom fa indahu naka moom kat ximaarun kem am mbaam la yaxmilu moom dafa saf ay téere waaye nee na kat xam baax na loolu waaye balaa am njariñ rek nga jëfe ko bu fekkee jëfewoo ko day mel ne mbaam mu saf ay téere yanu na lu am njariñ sonn na ca waaye taxul mu jariñu ca kon ku am xam-xam te jëfewu ko yore na lu baax waaye nag ñàkk kaa jëfe ba jariñu ca moo tax ñu misaale ko am mbaam mu sëf ay téere mooy la mu sëf am na njëriñ waaye da caa sonn rek te jëriñu wu ca la moo xam lu leen al ilma xam-xam li wajhillaahi ngir jëm yàlla duunal munaafasati ci ludul ak ëpplante wat tabaahi ak puukaréwo xam-xam nee na daa am njëriñ lool waaye bu ngeen ko dee jàng ne yàlla rek tax bu leen jàng ngir ne diw maa koy ëppale xam-xam du ma mbaa bëgg ko puukarewoo ci kanam waa àdduna laa taqsudu bu leen jublu istimaalatal baraaya sàkkoo jengal mbindeef yi jëm si ci yéen wala xawsakum du caageenu seenu làq alhadaya ay adiya bu leen jàng mukk xam-xam ngir nit ñi wëlbatiku dëgmal si leen mbaa ñëw di leen jox ay addiya loolu daal moom moom leen tax a jàng xam-xam fa man taallama ku xamlu li ngir li nga xam ne xad dukkira tuddeef na ko fasaayuhu kon jëfam ja jaraa daw na fi haddimi diinihi ci màbb diineem ja wa baaxate jaay na axiratahu alaxiraam bi duniyaa jëndi adduna wa baaxate sànku saayuhu jëfam ja wa xaabate mu sooy saayan ci jëf id ngir safxatun pasfasu njaay xadirte jaaxaa bopp yaakaaroon na ko xasirat perte na wa bayaxuhu te njaayam ma tijaaratun am yaxantu la am commerce la bi xat moom tënawu wut muy bénéfice wut nee na képp kuy jàng xam-xam te yàlla taxut xanaa rek bëgg nit ñi dëgmal si ko mbaa am alali àdduna dong kooku day moom nee na màbb na diineem te yëgu ko jaay na àllaaxira ma am solo jënde ko àdduna mu ñàkk solo mi jëfam neen noona rek mu sonn ba noppi jëriñu wut nga xam ne kon bu fekkoon ne ku doon jaayante la kon nga xam nax nañ ko perte na ci njaay ma amu ca dara ci bénéfice wa an na man ak naka nga xam ne àllamahoo jàngal na ko xadd kaana nekk na mi awaanan dib dimbaliwaakon loxoo ñeel ko ala xisiyaani yi ca moyam nga ne na kay jàng sax te yàlla taxut boo ko dee jàngal yaa ngi koy dim dimbali ci xam-xam ba muy wut te yàlla taxut loolu waroo ko ci woon dimbale te yaa ngi ko ciy dimbale kon foofu moom mu sharikun aji bokkaale la lëxoo ñeel ko fi dorri ca lor ja kama nekki ki nga xam ne yabiixu dana jaay assay fa jeesi ahlul makri ñooñ pexe wala ñooñ wor nee na kiy jàng te yàlla taxut boo ko dee jàngal yaa ngi koy dimbale ca moy ga te yaa ngi bokk ak moom bakkaar ba danga ngaa mel ne ku fekk kuy def ak lixóor maanaam lu bon nga jaay ko ngànnaay lam koy defee fal daq su doon na ngeen jublu arbaxatan yent xindab ci daa taalumin fa tàmbalik xamlu li kay tafoosoo ngir ngeen toofu bil xudaa ci jub ga nee boo dee bëgg tàmbalee jàng xam-xam yent a ngi ni yoo xam ne moom nga war a fas ci sa xol ndax yàlla dimbali la awwaluha aj jëkk seen alxorooju moo di génn min dalaalin ci réer wattaani ñaareel bi nafamu xalqi fil jalaali mooy jariñ mbindee fi borom màgg ga taalisuha aj ñetteel seen al ihyaaw mooy dundal ga lil xoloo mi ñeel xam-xam ya war raabixu ñeenteel ba alxamalu mooy jëfe bil maaloo mi ca lañu xam yent yi nee mooy da ngay fas yéenee génn ci réer génn ci cànkute ndax li ci ëpp ku réer moom sawaraa kon nag fas yéenee génn ci réer moom ngay njëkk fas ci boo dee jàng xam-xam ñaareel bi mooy fas yéene loo xam rek jariñ ci mbindee fi yàlla yi ñetteel ba mooy fas yéene dundal xam-xam ndax moom boo ko jàngoon kese te jàng te jàngale ko it rek du tee dundal nga ko bu ñëpp toogee kenn bañ koo jàng ñu xamoon rek yem ca kon xam-xam day dee benn yoon kon nag la gën mooy nga jàng ko jàngaliwaat ko waaye nag bu fekkee ne jàngaliwaatoo ko itam jëmi jàng rek ak dundal xam-xam la kon ñetteel mooy fas yéene dundal xam-xam ci jàng gi koy jàng moom xam-xam ba ko ñeenteel nag mooy fas yéene lépp loo xam rek jëfe ko ngir yàlla yent yi booy tàmbalee jàng moom ngay fas li sa yit yi ñeel na sama sang zaruuqa te mooy zaruuq baytaan yaari bayit huma yoo xam ne ñoom ñaar yu rabbiyaani danañ yar man képp koo xam ne xawaa làq na tafahuman ak dégg mu ne woon man talaba ku sàkku al ilma xam-xam ba yu baax yi di bëgg a puukaréwoog al fuqaha way dégg yi fiq bi ilmihi ci xam-xamam aw li yumaari yi wala ngir mu waranteeg al sufaha way desee diya aw li yanaala wala ngir mu am aljaax daraja xinda naasi fa nit ña baa kon mu dellu binaarin ci sawara wax wa timbir moom moom du iflaasin boroomu perte la zaruux ku sëñ bi faral tudd la kilifa la woon am na yaari bayt yu wax yoo xam ne nee na képp ku dégg rek tey bëgg jàng danga nga ci yaroo ndax daa waxoon ne kuy wuti xam-xam te jubluwu ca lu may xalantoo ko am xam-xam maa wan leen ne ci xam-xam baa di jàng rek ngir waranteeg ñu desee di ñi mbaa bëgg ci am daraje yi àdduna rek kooku day nee na bu ëllëgee sawara rek lay jëm ànd ak perte mu ne ñaari bayit yooyu nag Zarruq moo ko wax te ku ko dégg rek war laa jàjj war laa yar waaw da limeef na min aadaabi zi taallumi mu bokk ci teggiini boroomu xamlu sidaaru hoo dawam nga min durri kulli muslimin ci lor bépp jullit bokk na ci teggi ni nag kuy sàkku xam-xam muy moytoo tolloor benn julit ndax ku wut lu baax du tooñ kon nag nay moytoo lor benn jullit waxut da limeef na min xaa ci teggiin ya kaw nu foo nekkam nga mujj taxidan di aji farlu fii fardihi ci farataam ja fii fardihi wama ak la nga xam ne xawaa làq na te ak kudan ak feddaliku bokk na ci teggee ni kuy wut xam-xam mu farlu ci di matale faratay yàlla yi ak taxaw ci sunna yi ñu feddali ak mboolem ngëneel yi sax kem kattanam wala yakun te bu mu nekk mu wax xira salaati di aji yeexe julli xanil awqaati wali si waxtu ya bi xayri ma xudrin ci lu dul ngànt nee kuy sàkku xam-xam daal nay moytu yeexe julli ba waxtoo jàll te julliwu ko te moom kat coobareem dong la amutoon benn ngànt bu amul ngànt daal moom na moytoo yeexe julli ndax julli moom kenn sañu koo yeexe ba waxtoo jàll te julliwoo ko ci lu ngànt ndax yeexe julli ba waxtoo jàll daa bokk ci bàkkaar yu màgg yi wa kaw nu xoo nekkam nga aydan ba tey sax yéen di aji tabe abadan faaw bi ilmihi ci xam-xamam badaa feeñ na minat ta addu bi di bokk ci teggiinu nee ba tey bokk na ci teggiini kuy sàkku xam-xam mu tabe ci xam-xamam ak jumtukaay ya nga xam ne ca la sàkkoo xam-xam mooy lam xam mu néewoo mu bari mu di ci xeetli ñem ca mën a xeetli ku ko laaj dem xam la ngay laaj mu tontu la bu ko xamul ne la demal laaji ko diw ko defee téere buñ ko àbbu mbaa alluwa mbaa lu ñuy jëfandikoo ci wàllu xam-xam rek mu able ko ngir yàlla lu ci mën a joxe ngir yàlla sax joxe ko ngir yàlla fa kullu man képp koo xam ne xadd baxi la nay na bi ilmihi ci xam-xamam ba fa innahu naka moom yóbbu talaa def na ko nattu xablal mamaati njëkk faatu ga nee na ko yàlla jox xam-xam nga nay ca faaw rek yàlla teg la nattu bala ngaa génn àdduna waxu da limeef na min xaa ca teggin ya kam nu foo nekkam nga mu waqiran di aji fonk lil xilmi ñeel xam-xam ba bi tanzimi ca màggal ga lil lësi ñeel la nga xam ne xara jàng na ko xaraa lañuy ñuy bind waaye xara a mooy cosaan ci baat bi ci kaw loolu falay sa yëmbax yi du yell laxoo ñeel ko wabbu kitaabin teg ab téere aw lawhin wala alluwa aw waraqat wala aw kayit xaala turaabi ci suuf nee na bokk na ci tegg yi ni kuy sàkku xam-xam mu fonk xam-xam ba nga xamee ne jumtukaay ya nga xam ne sax moom lay sàkkoo xam-xam bi da koy fonk niki téere ba nga xam ne ca lay jànge mba àlluwa ja na ko moytoo teg fi suuf aw kayit saxu am mbind na koy moytoo teg fi suuf bu rombee sax kenn teg ab téere mbaa àlluwa mbaa aw kayit ci suuf mu daal di gaaw yëkkati ko teg ko teg ko fu ñu koy ormaale waxay suma ata foofi xam ne dikk na minal xalaa yi bàyyikoo ca wana wa banda xadaa yi ci gannaaw ak faj aajoom maastin jaayin ànd ak tàncu mooy sobe sa génn ci moom mu raxase ko ndox loolu moo tudd tàncu tuma araada topp mu namm almassa laal lil kitaab bi ñeel téere ba falyaxsil kon na raxas al yadayn yaari loxo ya bistihbaabin ci ak sopp aw yatawadda wala mu jàpp su ma yaaxuz topp mu door a jël alkitaaba téere ba mu bajjilan mbir mu muy aji màggal muxtariman mbir mu muy aji ormaal yax wi kon mu làq ak tawaaba yool ba nee saa yu demee ci wana wa nga xam ne kon doon na raxas sobe sa ci loxoom su génnee bu mu jekki-jekki laal téere ba muy jànge na raxasaat ay loxoom raxas bu yees ndax ormaale ko téere bi muy bëgg a jël bu mënee jàpp sax jàpp ga moo waaye nag su fekkee ne mënta jàpp sawaru ca ba amul ndox na raxas loxo ya raxas bu yees door a laal nag téere ba muy jànge ko defee nag mu door jël téere ba ànd ak màggal ànd ak ormaal ndax yàlla may ko tuyaaba waxut limeef na min xaa ci teggin ya kaw nu xoo nekkam nga muxtariman di ormaal li cheikh yi ñeel sëriñam ba waxaadiman tey aji liggéeyal ko muxaziman tey aji màggal ko id ngir xiila waxeef na ne inna naf xaman naka njariñal ka nga xam ne taxallama xamlu na niita ajeef na ko bi ijlaali siyooxi ci màggal sëriñ sa alxulamaay ña way xam ne bokk na ci tegg yi ne kuy sàkku xam-xam muy ormaal sëriñ ba koy jàngal ak sax mboolem boroom xam-xam yi ndax nee nañu kenn ku ne na mu màggale boroom xam-xam yi rek noona la njëriñal xam-xamam di toll watu xaddu def na lim sittatu asiya juróom benn yëf tu addi yooyu danañu àggale li rachad jëm ci jub min shuruti talabil xilmi mu bokk ci sarti sàkku xam-xam juróom benn yëfa ngi nii yoo xam ne nee wax ne ni bokk na ci teg yi xam-xam mu war a sàmmonteeg ñoom awwaluha aji jëkk seen sabrun moo di muñ alal jooxi ci ab xiif alwasati ba digg doomu ka asadi ni ki gaynde ba jëkk ci yooyu mooy ñeme ab xiif waaye nag na nekk xiif bu digg doomu bu nekk xiif boo xam ne day ëpp ba tax koo telbati mbaa yaram yaramam wéradi moom daal na fexe ba balaa lekk xiif te bu dee lekk balaa reg rekk bàyyi waxtaani ñaareel bi junni buta yal na sori leef la alxalata njuumte itaalatul julloosi moo di yàggal jataay ba fi taxallumi ca xamlu ga kan nasri niki am tan bi buti xaa ridal muallimi ànd ak sàkku ngërëmal aji jàngale ja ñaareel bi nee na mooy di yàggal sab jataay fa nga xam ne fa ngay jànge ni nga xam ne moom la tan di yàgge ci fa muy faje aajoom di yàgg ci béréb ba ñuy jàngee nga xam ne loo xamut man koo laaj bi dee jàngal keneen nga di ko dégloo ko teewlu rawante ne bu dee loo jàngoon ba àggal nga xam ne léeg-léeg toppaat ko yombul woon teewlu gi am ci buñ koy jàngal keneen léeg-léeg doo ko am ci buñ la koy jàngal ci sa bopp kon yàggal jataay ba ca fa ngay jànge mooy melow ñaareel wi taalis waa aj ñetteel seen xirsul mooy xir xalaa talabi hi càkkutéefam ka misli xirsil kal bi niki kem xiruk ab xaj fii ma talabi hi càkkutéefam la ñetteel bi mooy mu xir lool ci xam-xam bi muy sàkku ni nga xam ni moom la xaj di xiree ci la mu wut dañuy bañ nga gaaw a doyal boo xamee lu néew daal defe ne xam nga lu baree bari wala booy jàng sa bind boo ko xawee dégg daal jàpp dégg nga ko ba ca dayo ba mbaa boo ko xawee mokkal defe ne mokkal nga ko dëgg ci xam ba nga xamee ne loo dara rek jàll bëgg caa yokk ak xam loo mokkal mokkal dara jàll bëgg koo gën a mokkal loo xamul rek di ko jéem a xam xam ne moom daal nga ci xir bu baax a baax te bañ cee gaaw a doyal raabi moo aj ñeenteel seen xel mun mooy lewet ka mislil xirri nekki kem muus boo wut xam-xam da lewet mën a jëflanteeg ñëpp ba am li nga wut ba noppi xam nga muus lu bari daanaka du jariñ doomi aadama yi waaye teewul ak lewetam akuk yewuteem akuk muusam tax na bu mën a dëkk nit ñi duñ ko dóor duñ ko def dara xëy na sax ñu boole ca buñ dee lekk tibbal ko def ko ne waa kër ga loolu ak lewetam akuk mufteem moo ko ko may léegi nag booy sàkku xam-xam da ngay amee jikko ju mel noonu bul naqari deret bul gaaw a dàcc bul gaaw a mer daal na nga amee melaw mu soowule xaami suufaa ak juróomeel seen idaamatun mooy saxal li sabri ñel muñ anin nisaa yi wala si jigéen ña assaarifaati li himami ña way wëlbati ay yitte ka sabri xinziirin niki muñuk mbaam xurux bila tahammumin ci lu liy teewoo juróomeel bi mooy mën a muñ jigéen bul ne damay daal di gaaw takk sama doomi nijaay jee mbaa sama doomi baay jee mbaa nangam ak nangam muy dagg sam njàng déedéet yow daal njàng mi nga nekk mu ci rek fexe ba am li boo amee ngay wut moom takk soxna du saa yu nekk rek nga gis ko mën a àndal ngir yàlla incha allah kon na mën a muñ jigéen ñi ni nga xam ne moom la mbaam xuux mën a muñee jigéen saadi suhaa ak juróom benneel seen sabrun mooy muñ xalaa dullin ci torox bi faaw sabra ximaarin kem muñu mbaam juróom benneel bi nag te moo ci mujj mooy na nangoo muñ toroxte ak ñàkk bu taamu ne faaw nangam laa war a sol ndax samay morom moom la ñuy sol ci néeg ma nangam laa war a dëkke nangam la juróom nag te moo ci mujj mooy na nangoo muñ ñàkk bu mu taamu nangam laa war a sol ndax samay morom moom la ñuy sol ci néeg ma nangam laa war a dëkke nangam laa war a mel nangam war naa ko am yooyu na ko moytu moom daal na nangu toroxte nangoo wéy ci ñàkk akuk doye di mel ne mbaam mbaam daal daanaka amul lenn lenn lu muy jomblu mbaa lu muy bañ kuy wut xam-xam nag noonu la war a mel ci googu wàll moo tax mu ne kenn muñu mbaam fàttali boo na ngeen sàkkoo arrachada jub ga bis ci yile nee na wax da ko xam te jàpp ko sàkkoo ni xam-xam wa haadihi shuruut yi lay sart laatu xassalu dee fu leen mën a amal illaa bi kaddin dara ci ak coona wajtihaad akuk farlu yaxsulu kook dana am sart yi mu wax nag nee na yombut faaw rek nga nangoo góor nangoo góorgóorlu doola mën lii waaye lii mu mën ko yombut farlu bu baax nangoo sonn bu baax mooy tax nga mën ko ruumoo na ngeen sàkku jihaada nafsi jihaad ak bakkan yaa ixwaanu yéen mbokk yi fa la ko moo ñeel na leen bi ci jihaad jooje xadan ci ëllëg aljinaanu ajjana ya na ngeen di jéem seen bakkan ndax bëreeg bakkan ci la ñuy amee bu ëllëgee man lam yakun ku nekkut mujaahidan di aji jihaat ak li nafsihi ñeel bakkanam fa innahu naka moom laa yaxtawi du làq fawaida ay njariñ ku nanguwuta bëreeg bakkanam li ci ëpp du am mukk njariñ wa man yadum ku sax nag xalaa jihaadi nafsi ci jihaat bakkan fa faa isun kon aji texe la xinda xulooli ramsi fa wàccu bàmmeel ba nee na ku sax nag ci bëreeg bakkanam teg ko ci la yàlla bëgg rek bañ ko bàyyi ci la ko neex bis boo wàccee ci sa bàmmeel rek foofu ngay noppaloo nooflaay boo xam ne coono du ca toppati wa in surif tumoo ndeem wëlbateef na leen inal jihaad jëm ca jihaad ja faqat dimoo jiital leen daala ñeent minal ahaadi ca noon ya bu ngeen bëggee jihaad ak bakkan nag xam leen ne du bakkan dong waaye daa am yeenti noonu yoo xam ne bakkan benn la ca ñu war a ñoom ba daaneel leen door a mën a am lañ bëgg waxoo moom jihaad jooju la xam riya sama dund mooy sama ngiñ al jihaadu mooy jihaad ja al akbaru ji gën a rëy ataana naka mënu dikkale alxabaru xabaar ba bi ci loolu an hum jële ci ñoom te nee na jihaad ak bakkan ak yee mu àndal day nuru ne mooy jihaad ju ndaw waaye fekk na mooy jihaad ju mag te moo gën a metti ndax boo ko dee seet jihaadi jaasi moom li ci ëpp du yàgge noona benn nga rey yéefar ba daal di boole yaar ngañaayal adduna ak ngërëmul yàlla ak ajana mbaa yéefar ba rey la nga daal di am darajay shahada ku dee ci jihaar daal di am ngërëmul yàlla ak ajana kon jihaad ak bakkan nag moom mën naa yàgg ndax xëy na na dunduk nit ka yàgge rek noonu la war a saxe ci bëreeg bakkanam te lay baax rek mooy mu gañe bakkan bi waaye su ko bakkan bu gañee rek boo tuut mu daal di bëgg dem ci kërug safaan ba moo tax ñu ne moo gën a rëy moo gën a màgg moo gën a jafe nafsan mooy bakkan wa duniyan ak àdduna summa seytaanan topp seytaane la ay nan guddi ku ñu rëbbu xawoon ak bànneex fa kulluhaa képp ci ñoom xadduwun ab noonu la laayal yéenu bopp du nooy yeena yéwant yi mooy ñeent noonu yi nga xam ni moom nga war a bi bakkan bi ak bànneexu bakkan bi ak seytaane ak àdduna te kenn ku ci nekk sab noonu la boo xam ne yombuta daaneel nit ku ñeel na kenn ku ne sijnun ab kaso wa silaahun ak ngànnaay yoo la mu bopp def na ko xam fa àdd xiloo na ngeen leen dugal ca kaso ba wa kassiroo ta ngeen dambate ngànnaay ya fatas la moo kon da ngeen mucc nee na ñeent noonu ñi kenn ku ci ne am na kaso boo xam ne boo ko ci dugalee rek du la mën a gaañati waaye nag kenn ku ci ne am na ngànnaayam loo xam ne moom la lay songe te bu gaawul dem ngànnaay la rek mu daal la koy cor maanaam ku ci ndaa am ngànnaayam xam ne war ngaa gaaw dammate ko bala mu la koo caw fa naf su ba tus jël def na ko tëjee bu jooxi ca xiif ba ak xawili bay aji yàgg wama laha de di ko ñeel xëydun benn tënk yoon lanu bu def na ko feeñal siwaahu ndare moom bakkan moom nee na kaso ba nga koy tëj ba la mënal dara mooy xiif rek xiif daal moom moom la bakkan ragal boo ñëwee xiif daal moom sa bakkan du la gañ a mukk amma silaahu haa naal ngànnaayam la ëllësi la nga xam ne xadd tam na naxu baraana mu teree bii ci moom al mutih aju topp ja min hudan ci jub fa shibahun moo di ab reggaaye nganaayam li nga xam ne nag moom boo yéexee mu songe la ko te daal lay bëgg a daaneel mooy rek taqoo regg reggaay boo xam ne moom doo ben benn yoon kooku moom day tax sa bakkan gaaw laa gañe de sa xëy na gindi rek regg moom mën naa am du bare lor noona waaye saxoo ko moom day tax rek bakkan bi gañe la wa sijjinu duniyaa kasob àdduna xonsulatun mooy beru bi ilmin ànd xam waa amalin ak jëfe li wajhi mootil fahmi ngir jëmmi yàlla mi aji joxe ak dégg àdduna moom noonu na boo xam ne boo ko bëggee tëj kaso da ngay néewul sab jaxasoo bu amul njariñ boo fexee ba xam la nga war a xam ba noppi nag beru di ko jëfe rek daanaka adduna du la mën a yóbbaale kon kaso bi ngay tëj adduna daal mooy néewal ab jaxasoo beru te fekk na nga xam la nga war a xam taxaw temm nag ci jëfe ko te yàlla tax loolu daal boo ko defee adduna du la mën a yóbbaale amma silaahuha daal ngànnaayam la ëllësi la nga xam ne du dana alage bii ci moom fa moom al muxaalatatu moo di ak jaxasoonte fii xëyri mu fii din ci ludul aji am njariñ gànnaay li nga xam ne moom la la adduna gaaw a songe daal lay gaaw a rek mooy bari jaxasoog doomi aadama yi te jaxasoo ba amul njariñ mënoon naa ñàkk jaxasoo ba amul njariñ daal moom ci la adduna gaaw a yóbbaale la wasijinu seytaanin kasob seytaane bila xilaafin ci lu benn wuute dikrul illaahi mooy tudd buur ba almaani yi kay aji fekk almuhaafi kay aji jàmmale seytaane moom noonu la boo xam ne kaso bi nga koy tëj ba du la mën a lor rek mooy bari tudd yàlla boo dee faral di teewlu yàlla ak di ko tudd ci sa làmmiñ rek tëj nga seytaane ci kaso du la mënal dara amma silaahuhu daal ngànnaayam la ëllësi la nga xam ne yasoolu dana songe bi ci moom mutihan aji topp fa huwa moom alxufoolu mooy sàggan ci tudd yàlla ngànnaay li nga xam nag moom moom la la seytaane songe te boo yeexee mu daal lay gaaw a daaneel mooy rek boo sàgganee ci tudd yàlla ak fàttaliku ko boo xasee sàggan tudd yàlla daal moom may nga seytaane bunt bum la songe daal lay gaaw a daaneel wa sijnu kaso ba lil xawaa ñel bànneex sukkoot mooy noppi xàmmaa ci lépp loo xam ne lam yekku nekkut za faidatin di borom njariñ wa naamaa ak xéewal bànneex ab noonu la waaye am na kaso boo koy tëj te mooy téye saw làmmeñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba fekkee da ngay noppi daal téye saw làmmeñ jëpp wax ju amul tuyaaba rek sa bànneex du la mën a gañe amma silaahuhu daal nga naayam ëllëg la nga xam ne yasuulu dana songe yi ci moom sox san jëmm fa kasratul kalaam yi mooy barig wax fil fudool yi ci caaxaan nga naay li nga xam nag moom moom la la bànneex di songe daal lay gaaw a gaañ ci saasa mooy bari wax te wax ji jëmul ci tuyaaba waxi caaxaan rek yu amul tuyaaba daal moom boo ko dee baril moom sa bànneex daal lay gañe te yomb minal jihaad yi bokk na ci jihaad ay yu xaafisa muy wattonte xalaa xudoodi rabbil xarsi ci dayali borom aras jàll màgg na waxalaate mu kawe wa yaqifate muy taxaw inda amrihi fa ndigalam la wa nahi ak tereem nga bokk na ci xeetu jihaad bi ñu lay wax mu wóor leen doomi aadama kat daa am lum sañ ak lum sañut du rek lu ko neex jàpp lu neex bàyyi dañ ko ne yemal fii bul weesu fi kon nag mu sàmmoonteeg atte yàlla atte ci kaw suuf fexe ba yem fa mu war bañ koo weesu loolu kat doomi aadama bu ne war na caa jihaat jéem ca kem kàttanam fu ko yàlla digal seen ko mu nekk ca fu ko yàlla tere bañ ko faa gis wa añ yettoo ba ak muy tuub ku laxiin ci bépp waxtu mu'tarifan mbir mu muy aji tudd bi zambihi ci bàkkaaram li rabbihi ñeel boroomam min xabli an yakkoona ci njëkk muy nekk saaxitan di aji mere xale yi ci moom fii zamani ci jamono mu kàllafkat kat war nay farlu ci fu mu toll di tuub ndax kurlu jàdd daanaka amut néewoo bare rek waaye daanaka ab jaam burul jàdd benn yoon néewaa ci jaam yàlla yi kon nag fu mu toll nay tuub di tudd bàkkaaram di ko jéggul boroomam bala ko boroomama mere ndax bu ko yàlla meree xolam day wow ba du sawarati ci tuub te bu tuubul rek boo tuut njéggal daal koy jawe wa min shurutiha bokk na ci sarti tuub ya nadaamatun rëccu xalaamaa ci la nga xam ne faataha raw na ko minal maxaasi ci ay mooy mus jalan lu mu di doon wa niyatun ak yéene an laa yaxooda mu bañ dellu li dunoo bi jëm ci bàkkaar ya muddata di diirub dundam ga li xaw fii ngir ragalam alxariba yàlla mi aji jege wa an yakkoon ak mu nekk taarikal xisiyaan di aji bàyyi mooy ga in kaana dem nekkoon na xaasiyaan di aji mooy bilaa tawaalin ci lul yeex tuub dañ koo sàkkal ay sart yoo xam ne bu fekkee sa diggante yàlla dong la ñett lay doon bëj njëkk mooy nga rëccu loolee nga xam moom nga def te muy lu neexu toon yàlla rëccu ga itam nga teg ko ci kaw rek maa ngi doon def lu neexul yàlla bañ koo teg ci kaw tax na ma ñàkk sama daraje àdduna mbaa tax na ma amee ci wér yaram mbaa xeet yooyu la déedéet da nga koy teg rek ci man daal rëccu naa lool li ma doon def te neexul saa ñaaral ñaareel ba nag mooy nga dogu ci bañ koo defati mukk mukk li seg dund du tee nag bu la seytaane ma ne mbaa sa bakkan ba nga dellu ca itam nga dellu tuuba tuub gu sell rek bañ a naagu doonte bàkkaar da nga ko def ay yoon yoon ci bis bi waaye saa yoo ko defee rëcc tuub rek baax na ndax yàlla mën na laa dimbale nga mujj bàyyi ko bu wér ñetteel ba nag mooy bu fekkee bi nga naa maa ngi tuub daa fekk nga nekk ci mooy nga bàyyi ko fas saa say saasa ndax kat boo sëggee ci may ba noppi naa damay tuub ngay mel ne kon kuy reetaan ko faral di misaale léeg nit ñu ngi def rek ci càggante di bëgg wax loo xam ne wóor na ko ne lu aay la xelam ak gëmam dal na koy fàttali ne ko li ngay bëgg a wax lu aay la waaye du tee rek mu ñeme yàlla daal ne dama yàlla jégal waaye nangam nangam te fekk na moom laata mu koy wax rek wóor na ko li muy bëgg wax aay na te fàttiwu ko moo ko tey waaye day wax rek yàlla dama yàlla jéggal waaye nangam ak nangam loolu ëpp naa def wala loxoo dee di ko ñeel taxirun yeexe aw tasabur wala muñandiku li taw bët ñeel tuub wala wala yaqoolu te doo xam ne asbiru damay muñ xataa yi ba dikk hidayatur rahmaani jubaluk aj yërëme ji fa inna zanaka lii xalaamatul xidlaani mandargam gecc la maxa shaqaawati ànd ak texee di waraynil xal bi ak térib xol inni naka man awodu danaa muslimin xumaa ci yooyu yaar bi ci sama boroom mu kàllaf nag su jàddee yoon daa daal di war a gaaw a tuub dellu ci yàlla waaye bu mu jekk di wax naa yàlla naragul rekk ma jub waaye bis bu ko soobee rek ma jub déedéet ni nga xamee ne rek bu siburoo mbaa dara di ko mettee taxaw temm ci seetlu ko faj te lu bàyyi rek ne bu neexee yàlla lee mu sedd noonu la war a góorgóorloo ci saa yu jàddee yoon daal tuub fi saasa delluwaat ci yàlla waaye ko dégg mu naa rek damay bàyyi rek bu neexee yàlla danaa soppiku danaa jub xam ne kooku daal dafa ñàkk tawfiixu bi yàlla te texee di ak xol bu tëree tëre rek dal na ko te yooyu yaar moom mat naa muslu moo tax mu naa yal nañu yàlla musal ci texee di googu ak xol bu tilima tilim ba nga xamee ne rek na nangoo tëjëmati ci aw yiw xaqiiqatu tawbati dëgg-dëggi tuub tarku zambin moo di bàyyi bàkkaar sabaxa boobu jiitu woon na misluhu am kemam li wàcc rab bi ngir jëmmi buur bi alaxtiyaarin ànd ku coobarewo dëgg-dëgg tuub daal nee na mooy bàkkaar boo xam ne mas nga koo def nga jekki-jekki bàyyi ko te yàlla tax te fekk ba nga koy bàyyi nga mën koo bàyyi waaye bu fekkee da ngaa dem a dem ba cër ba nga ko daan defee mënatul bàkkaar boobu rek nga daal ne man tuub naa dañuy jàpp ne kon ñàkk pexe la waaye du tuub tax mu naa laa ka misli samami du caagéen lu mel ni ki ak tëx waddaa yi farjin ak jàngoroy pay pay mooy sawukaay waxaman ak gumba wa bakamin ak luu ku daa déglu ci noppam lu aay dama dem nag ba nopp yi tëx mënatu ko déglooti bu ne tuub naa dañuy jàpp ne kon ñàkk fexe la ndax mënatu koo déglooti ko daa mooy yàlla cib sawukaayam dam ba yàgg sawukaay ba dagg mbaa mu am sikk soo xam ne mënta moyeti yàlla bu ne tuub naa dañuy jàpp ne kon daa ñàkk waaye du tuub ku daa xool lu aay mbaa di ko wax dem ba yàgg nag mu gumba mbaa ko nag mu ne tuub na dañuy jàpp ne kon daa ñàkk pexe waaye tuubut teew na nee nañu bu fekkee yàlla xam na ci xolub kooku ne bu ko delloo woon cër boobu itam du ko tax a dellu ca mooy yàlla ga te yàlla jégal ko ca loola ba li fi nekk kay tarkuhoo mooy ak bàyyeem fàqa dong li taazimil azimi ngir màggal yàlla mi aji màgg wala xaw fi ak ragal aydan ba tey min xadaabihi ci mbugalam nga ak alimi bee aji metti maha nadaamatin ànd ak réccu xalaamaa ci la nga xam ne xadd xalaa wéyoon na minal maxaas yi ci ay mooy wala xuyoo bi ak sikk mos jaran lu ñu man doon dëgg-dëgg tuub kay nee mooy dangay bàyyi bàkkaar ba ngir xam ne yàlla mu màgg mii daal wërta aaye ba noppi ngay jege la mu aaye te itam ragal ne ëllëg kat boo taxawee fi kanamam mën na laa def lu méttee métti lu attanut su ko defee nañ ko waxee woon nag nga rëccu lépp loo mos a ci xeeti mooy yàlla yi dogu ci bañ ce dellooti muk mukk nañ waxe woon rek sarti tuub léegi léegi wa min shurutiha bokk na ci ay sartam moom tuub bi xawlil xulamaa ci wax way xam ñi raddul mazalimi delloo tooñaange ilaa man jëm ci ka nga xam ne zulima tooñeef na ko sarte nga waxoon mooy bu fekkee bàkkaar ba sa diggante yàlla képp la bu ci doomi aadama yokkoo nag moom kon da nga cey boole defar sa digganteeg doomi aadama ba la ngeen séqoon jeex tooñ koo tooñoon rek nga fexe ba defar sa digganteeg moom ci nii muy bëgg a wax fal yardut na delloo al amwaal alal ya lil arbaa bi jëme ci seeni waroom in wujjudoo ndem fekkeef na leen ak daxare ci jamono bi lartiyaa biñ ci dul sikki sàkka su fekkee tooñ nga nga tooñoon ab jàmbur wàllu alal la te kookaa ngi dund moom danga koy delloo alal ja te jéggulu ko noone nga defoon ba fab alalam ci loo xam ne neexul yàlla neexu ko moom itam su ma isaalam yoo jëdoo topp ndem fekkee fu leen ci jamono fal yar dut kon naka delloo li di si moo jëm ci seen way doon bilaa tara duduñ ci dul déng-dénge su fekkee ka nga séqal alal ja nekkatul ci àdduna waaye ña ko war a doon ña nga fa da ngay dem jox alal ja ñooñee ko war a doon su ma isaalam yoo jëdoo topp ndem fekkee fu leen ci jamono te sa daqa kon mu saraxe an walis ñoom bi xaaj alal yooyee kamaa xakkaa naka mu ko nettalee man ka nga xam ne xàqaqa dëggal na su fekkee daal àq ja alal la waaye boroom nekku fa ku ko war a doon nekku fa kon danga ko koy saraxeel rek dana jot ci tuyaaba ja bu soobee yàlla mu des nag yàq derub jàmbur wa yastaxillu dana sàkkoo daganlu mooy dana jégglu kula irdin bépp der akala boobu lekkoon na ko bi xiibatin ci jëw aw xasfin wala xaste aw chatmin wala ak ngaañ jalaago feeñ na in xadara ndeem teew na al madloomu kañu tooñ bu fekkee da nga yàqan derub jàmbur moo xam na ko jëwoon moo xam na nga ko tumaaloon ci dox tànk caaxaan ci njaaloo ti sowut moo xam na nga ko ŋàññoon waaye moom mi ngi fi da nga koy jégglu ndax mu jéggal la ko su ma in fuqi da ndeem ñàkkeef na ko nag fal yuksir na baril alxayra aw yiw alxayra laxal la ndax lee moom yejidu dana am chey an dara yi waddi loolu dana mën a fayee xàq kullihim ak képp ci ñoom bi ci ca loolee mustaxfiran mbir mu muy aji sàkku njéggal wal yarju ju na yaakaar xafu warab bi jéggal ak boroomam su fekkee ka nga amee àq ja moom nekku fa te gis nga ne moom du alal yàqub der la loolu kat nekkul lu ñu doon kon say boo rek bari def lu baax ndax boo ëllëgee boo taseeg moom alaaxira am loo ko fayee te itam nag nga di ko sàkkul njëggal ndax boo ko dee sàkkul njëggal di ko ñaanal rek yàlla mën na laa bindal tuyaaba sax ci loolee ba loola mën a fara fay la nga ko amee ci àq yàlla mën naa xam ne yow mi rëccu nga sax bu far mu wuutu la moom yàlla fayal la àq joojee far xamal la nag saa yoo tooñee doomi aadama rek tooñaale nga itam yàlla ndax yàlla moo la njëkk aaye nga tooñ sa moroom boo jégloo doomi aadama ba da nga jégluwaale sa borom boole ci waxarama araamal na almuntaqimu yàlla mi aji fayantoo alqahaaru kadi ab notaagon rada ilan ay caay-caay tasoolu yoo xam dana songe bi xaa ci ñoom annaaru sawara nee na suñu borom kat am na xeeti caay-caay yum aaye yoo xam ne da ko araamal te ku ko muy tuut boo tuut sawara man la caa boo lëgee xadd xarama araamal na alkasiba fen wal xiibat ak jëw ma namimat ànd ak rambaaj kibaran ak rëy wa xuj ban ak aaw xat yàqan goog amaana mu tàbbi wala goog dana tàbbi rek su riyaan topp ngistal sumxatan ak ndéggtal buxdan ak mbañeel xasaran ak kañaan ru'yata fadlin ak gisub gëneel xal ahad ci kenn xam ak ku mën di doon muy wéy daa wax ne bokk na ci yàlla araamal fen fen mooy wax lu bokkut la am loolu bokk na ci bàkkaar yu mag yi ak jëw jëw mooy nit nekku fi nga wax ci moom loo xam ne bu ko déggoon du ko neex te fekk sax loolu am na waaye bu ko déggoon du ko neex te bu loolu foofu am sax moom danga koo duural boole ja moom nag lu yaatu la ndax loo wax ci jëmm ji mbaa ci lu aju ci moom ni ki mbubbam mbaay dàllam mbaa montaram mbaa toolam mbaa këram mbaa otoom mbaa ab liggéeyam moom daal loo wax ci moom loo xam ne rek am na te bu ko déggoon du ko neex rek loolu jëw la ak rambaaj rambaaj nag mooy dem di nettali ay wax ndax bëgg yàq diggante nit ñi lépp loo xam ne boo ko siwalee moo indi yàq rek ko war a moytu bañ koo siiwal ak rëy rëy moom jikko la joo xam ne ju yàlla bañ la mooy jàpp ne am nga martaba kay am na martaba waaye yaa ko ëppale martaba loolu mën naa feeñ nag ci bu la waxee dëgg nga dégg ko doo ko nangu wala ngay jéem a réylu ci kawam di ko xeeb ak yu demee noonu ak aaw aaw moom mooy naw sa bopp soo nawee sa jëfu rek mbaa sa xam-xam rek mbaa sa jikko rek loolu sikk su rëy rëy la aaw bokk na ci jikko yi gën a bon ak ngistal ngistal moom mooy jëf joo xam ne jëfi àllaaxira la nga def ko te yàlla yi kese taxut loo def ngir yàlla yi kese kese rek mooy lu sell bu ci leen raxee lu bokk te yàlla rek ngistal laal ca bokk na ci yaaraam ak ndéggtal ndéggtal moom mooy jëfan jëf ju baax di ko nett li nag ngir bëgg ku la ca tagg mbaa ku la ca naw ni sax boo jëfee lu baax di ko li ngir bëgg ñu roy la ca ak sant yàlla moom dara nekku ci waaye boo jëfee lu baax wala bëtiku di ko nettali nag ngir bëgg ku la ca tagg mbaa ku la ca naw mbaa bañ boo ko nettaliwul ñu xas la mbaa yi demee noonu rek loolu mooy ndéggtal boo daan jëm ci teg mbañal mooy jekki-jekki bañ ab julit te yàlla taxut la koy bañ a daal weesuwul yëfi àddunaak ngir ñàkk déggoog yu demee noonu rek kon daal koy bañ da koy bañ ngir yàlla koy bëgg bëgg ko ngir yàlla kañaan gi mu ci teg mooy sa mbokkum julit am xéewal te yéenewoo ko ko boo ca boolee wax mbaa jëf ci sa loxo nag loolu moom te daal di araam de saa bu fekkee neexula ci sa xol maanaam daal kooku am na xéewal goo xam yéene woo ko ko waaye boo sañoon sax yéene ko ko sa xol rek nga mënta walbati te it waxi woo ko jëfe woo ko kon kenn la ca bindal bàkkaar waaye nag boo ko waxee mbaa nga jëfe ko rek moom mu nekk kañaan goo xam ne gu araam la bu ñu lay bindalee bàkkaar ci mooy ñi yàlla sàkk nga defee ne gën nga ci kenn kenn kenn saa yoo gisee ne yàlla sàkk gën nga ci kenn kenn rek xamal ne loolu amee nga ak te ëppoon naa def ndax li ñu gën nit mooy xam-xam ak diine te xam-xam ak diine tëkkuwut ndax ak mujj rek am solo te ndegam xamagoo sag mujj ki xamagul ak mujjam kon xam-xam ak diine lu rafet rafet sant rek te góorgóorlu ak ragal moo ci watu tax mu defe ne gën na kenn ci xam nga mbaa ca jëf ja wal hamza ak hamza wal lams ak lamsa bokk na ci yàlla araamal sikkal ab jaambur ci kaw jundeeg sa bët ba ñu xam ko ak sikkal ci kaw jundeeg saw làmmiñ ba xam ko wal hamsu haybun bi ishaaratin huyoon wal lamsu bil lisaani mayis yaa fatiyin nga jàngoon ci aljawhar alham soog lam su xeeti jëw lañ saa yoo xam ne fexe nga bañ xam sikkus jaambur ci kaw na nga ko junjee ci sa bët bañ xam ko mbaa soo làmmiñ bañ xam ko rek loolu xeetu jëw la te bokk na ci araam waylun li kulli humazatin lumaza koy jàng ci alquran kazaaka naka noo ne alxabasu fo foo moom dañuy seet rek mépp moo xam ne yoon yoonte bi aaya na ko rek ñu ko koo moytu booy jàng jawhar bi teqale woon nañ ko am na fo mu araam am na fo mu ñu sib am na fo mu dagan am na fo muy sopp kon nag mën ngaa dellu ci teqale ba foofa suxriyatun ak reetaane reetaane suñu borom da ko bañ lool ba wax ne laa yasxar qawmun min qawmin xasa an yakunu xayram minhum wala nisaun min nisain xasa an yakunna xayram na bu góor reetaan góor ndax boo demee kookee muy reetaan ko gën bu jigéen reetaan jigéen ndax boo demee kookee muy reetaan moo gën moom mi di ko reetaan kon reetaane moom ëpp naa def ci nag ak njaaloo njaaloo mooy jote góor gi jigéen ci sawukaay te fekk waruñu woon a jote ndax ab sëy doxul seen diggante ndax léegi mu wàllu njaam amatut kon sëy rek mooy tax seen diggante ñu sañ a jotee ci sawukaay kon nag suñ jotee rek ci sawukaay te suy doxul seen diggante loolu njaaloo la bokk na ci yi gën a araam kasaaka naka noonu rafasum becc maha ajnabiyatin ànd ak jaamur bu jigéen booy jàngooy wi nag maha ajnabiyatin rek jaamur bu jigéen bul waxanteeg moom waxante wu neex di ko kolaas mbaa waxanteeg moom lu jëm ci jote góor a jigéen yi mel noonu araam na ëpp naa def ak koo xam ne jaamur la ci yow jaamur bu jigéen nag mooy koo xam ne araamu laa takk moo xam am na jëkkër moo xam amul jëkkër ka nazaret xool kasaa ni ki nii at xarama araamal na at tala dusa bànneexu bi sawtihaa ca kàddoom ga jaambur bu jigéen nee nañu suñ laa xool lu may kanamam ak ay jëngam ci sartub sax mu wër la ne xool ga doo ci am fitna te it jëmmi xool ga jubluwoo ca bànneexu yooyu yaar bu ca tasee nga xam ne xool nga jubluwo ca ak bànneexu te it ci fitna kon mën ngaa xool kanam nga ci wax yi ñooñu ba tey jigéen joo xam jàmbur la ci yow dañ lay aaye ngay bànneexu ci kàddoom ndax dañuy bañ bu la kàddoom neexee boo tuut seytaane ñoddi la bëgg laa booleeg moom ba nga joteeg moom joteegu araam kon na nga moytu bànneexu ci kàddug jigéen joo xam ne ni jaambur la ci yow wa aklu maalin naasi lekk alal nit ña duuna tiibi nafsin ci lul teyu bakkan yu addi dana àggale an naf sa bakkan ba li tax diiri jëm ci ak bugal te bokk na ci ñu war a moytu lekk alal li jaambur te xolam seddu ca lekk alalu jàmbur te xolam seddu ca bokk na ci li taxa ami mbugal bu ëllëgee kal ak li lekk bi diini ci turu diine ba tey na moytu lekk al nit ñi ci turu diine kooku nag am na anam gu fés am na gu làqu gu fés gi mooy lu mel ni wax ne day tabax daara mbaa jàkk ak lu ko nuru xeeti projet yi jëm ci diine ba noppi bi ñu ko jox alal ja du ko ca def bi des nag mooy ñu yaakaare ko xam-xam ak baax te xam ne loolu nekkul ci moom kon bi ñu ko joxee alal wërta nangu ci gàttal rek alal juñ koy jox te wër ko ne la tax ñu koy jox nekkul ci moom rek wërta nangu ci bi ñu koy jox asaka sax te wóor ne moom waruwut warta lekk asaka sax waruta nangu wa bi shafaahati ak ci tinoo ba tey bu la yàlla maye daraja nga mën a tinu kenn ci kanam àttekat yi ak kanam yoon danga koy tinu rek ngir yàlla waaye doo ca sañ laaj alal bu fekkee ne nag dafa laaj paas dem ak yu demee noonu nag moom na laa jox paas waaye nag daraja ji moom liggéeyoo ko defoo ko dara koo ci mën a xeet li xeet ko ci rek waaye dees la ca fay dara ngir la ngay toppatoo ci sa daraja waxaaka saa nekki ni taxiru fi ali taaxatin yeexee def ak topp yàlla yeexe jullik farata lay wax maanaam jullik farata nga yeexe ko ba waxtu wa jàll ci sa coobare bokk na ci bàkkaar yu mag yi julli sax boo ko yeexee ba waxtaan ma rek jàll da nga am bàkkaar bu mag rawante na nga yeexee ko far ba daroor yi tam jàll moo tax mu teg ci falaa takkun bul nekk mu wax xira salaati di aj yeexe julli ga xan waqtihaa wala si waxtu